asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi téléspectateurs yi nga xamante ni yéenay suivre seen télévision bii di kuréelu Cheikhoul Khadim TV ak seen télévision bii di Touba Argentine TV ñoo ngi fii ci Touba Novarasa di nekk ci 24 heures avant journée xasida bi nga xamante ni moom la fas yéene amal suba incha allah rabbi di samedi 19 août 2017 ñoo ngi nekk ci dernière wàccaay bi moo tax ñu toog tey ji ak suñuy jëwriñ fas yéene waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci bis suba incha allah rabbi ci programme beeg nun koy doxalee ak fu mu toll beeg si fii ba tax na ñi ngi suñu wet suñu wet loxo ndeyjoor ñu fi dendeek euh, sëriñ Mohamed ñu ngi koy ziar baax jëwriñ ñu ko ziaraat bu baax suñu wet càmmoñ ñu dendeek Serigne Mame Maram sekk euh, kee nekk suñu càmmoñ ñu nekk Serigne Omar mi nekk Bota léegi moom it ku ne xam ko ci pasteefam ci njàmbaaram macha allah ci liggéey Seexul Xadim ba tax na ñu njëkkee ci nuyo bi Serigne maaram sekk di ko jox mu ubbi nuyoo ak mbokki téléspectateurs yi seetaan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 di nuyu suñu mbokk yi ñu fi fekk si di nuyu sëñ Omar ak sëñ Mouhamed euh, Samb euh, di nuyu bu baax kuréel Seexul Xadim TV ak Touba Argentine TV. jërëjëf euh, Serigne Maram Seck kàddu yi macha am na solo ñu jox Serigne Mouhamed moo mu nuyoo ak mbokki téléspectateur. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin barkeb Seexul Xadim barkeb Seex Musaa ñoo ngi nuyoo mbooloom. dayreetu bi nga xam ne ñoo taxawal lii di fédération bi di journée xasaay bi di leen nuyu di leen sant ñun ñëpp seen seen gërëm di jël nuyoo bi sëriñ Abdou Salaam mi fi newoon ak sëriñ Asgare ak sëriñ Dem nga xam ne ñoo jotee mbooloo mi ak sama mbokk yu baax yi ma bokk plateau bi muy sëriñ Seck yi jàmbaar yi toolu lislaam bi toolu Cheikhul Khadim bi ak sëriñ Omar moom tur bi rek wuyu na ko ndax murid lañ koy woowee dañ ngi koy nuyu baax baax di leen sant di leen gërëm. jërëjëf sëriñ Mouhamed kàddu yi macha allah am na solo. kon ñu jox euh, Serigne Omar bu Porto Alegre mu nuyoo moom it ak mbokki téléspectateurs yi waaw aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa yunniyo bika wa shuriyataha min asheytaani rajim rabbi aousu bika min hamazati sayatin wa aousu rabbi an yahduruni barakatu cheikh ahmadou bamba xaadim rasul sëriñ cheikh sidil muxtaar yàlla na fi yàgg lool tànd ko wér di ñaanal sëriñ cheikh jëmb faal mu yàgg fi lool tànd ko wér kon mbokk yi ñoo ngi leen di siyaar bu baax te di leen nuyu eh, di wax ni eh, ñi ngi siyaar nag mbooleem koo xam ne mi ngi jote ci télé bi te di ko seetaan fu mu mën a nekk ci à travers ci àdduna bi xanaa di nuyoo rek di jàll ci xëy na ci laaj yi sëriñ Moussa. jërëjëf eh, sëriñ Omar macha allah kàddu yi jotale leen am na solo mbokk yi nga xamante ni yéen seetaan seen télévision bii di Kuréel Seexul TV ak seen télévision bii di Touba Argentine TV. ñu leen fàttali ñu ngi fii ci Touba Novarasa li war ne suñu jataay bi mooy journée xasida bi nga xam te ne troisième édition bi fii lay amee ci Novarasa ñu nekk vingt 24 heures avant journée xasida bi ñu nekk ci dernier réglage si togg suñu jëwriñ yi di waxtaan na ñoom lu jëm ci journée xasida bi waxtaan bi nag day jëm ci beneen anam euh, jëwriñ Maram lan mooy say yëg-yëg ci dëkk bu mel ni Brésil ku ne xam na ni euh, diine dafay tumranke rawatina diine l'islam ay jullit ay sénégalais ay murit bi Seexul Xadim ñu ngi fi taxawal bis boo xamante ni bisu tool lan mooy say yëg-yëg ci loolu. jërëjëf sëñ Moustapha yëg-yëg euh, biñ ci am rek jàpp naa ni mooy yëg-yëg bi nga xamante nii moom la ci comme taalibe yëpp am ndaxte maanaam def lu baax dafay am solo ci anam ba nga koy defee ak itam bërëb ba nga koy defee te ku nekk xam na ni bërëb yii nii dafa tumuranke lool ak jaamu yàlla tumuranke lool euh, euh, tudd salaatu ala nabi tumuranke lool euh, sikkaru sikkaru leex yi kon bu ñu demee ba bërëb bii nga xamante ni maanaam ay nasaraan lañ nasaraan yooyu ñu mën leen a méngale ni seeni maam ñoo doonoon noon yi gënoon a mag ci nooni sëriñ bi tey jii ñu dem ba ci seen béréb yooyu ñu jël seen saal yi gën a bakkane seen riz yi gën a mag di ci tudd li nga xamante ni moom la sëriñ bi doon taggee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu noonu mbégte la ak fierté goo nga xamante ni dañuy gëm ni sëriñ Tuubaa yàlla fayal nañu ko dëgg la loolu ci lu wér la sëñ yàlla fayal na ko ba tax na loolu ku ñëw fii tey ci Touba Novara Sarr di nga gëm loolu ndax boo gisee fii salle bi du ay senegal ak ñoo fi nekk waaye Touba bi nasaraan ñi ngi fi nekk di jàpp ci liggéey bi daanaka bu figee tool fi seen loxo dem na te loolu lépp Serigne Touba la dama moom la yàlla fay kon ini bu nasara turra bi Serigne Touba xoon lii na ko la lu wér a wér la ndaxte sëriñ bi daf ne woon sama sama tey ju nekk dana gàccaal sama démb kon bu fekkee ni maanaam lii nii dafa am man li nga xamante ni mooy sama yëg-yëg ak li nga xamante ni mooy sama gëm mooy li nga xamante ni maanaam moom lañ gis nii yàlla xam na ni li fees ci ndab li di tuuru rek la waaye ëpp na sax maanaam euh, li nga xamante ni moom moo war a ñëw dinañ dem ba nasaraan yii nga xamante ni ñoom ñoo ni woon doo ko fi defee doo ko du fi amee ñoom ñooy su organiser suñu xasida yi ndaxte sëriñ bi daf ne woon dinañ dem ba bis samay taalibe dëgg duñ dégg wolof ñooñu nag jàpp naa ne ci nasaraan yii lañ ci nasaraan yii la war a doon kon ñoom ñi nekk giñ ciy nekk maanaam yéem nañ ma waaye ba tey des na ndaxte dama jàpp ne dañoo war a doon ñun ñibbi bàyyee leen liggéey bi ñu di ko continuer. jërëjëf Serigne Mara macha allah kàddu yi am na solo ñu jox Serigne Mohamed mi suñu wet kàddu salle bi ñu tudd ay ñoo xam te ni seen lépp liggéey mooy ci yëg-yëg ci waaw sëñ Moustapha kon ni ko sëñ Maram waxee rek liggéey bi Serigne Touba bi moom ba mu ko defal sam borom dafa defal sëriñam bu tedd ba yonte sallallahu alayhi wa sallam booba lii rek la ci bëggoon nag war nañoo yàlla bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ci nekk di ci na nabi ndax du lu yomb ndax lu yonte bi tànn ba noppi la suñ Touba tànn ca biir ñu def àggaleel mission bi ndax bu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam liggéeyee ba noppi te war a delluwaat jaaxle woon na lool loolu mooy tubaale man balaxa mi ata baabira amatal alf mooy ñeeneen fukki xarnu ba ak ñeent te war nga xam ne moo war a yeesal mu jaddub ga ca la ko xam boo am ne ko bu dee loolu rek la moom ñëwal nga dem ndax naa sàkk te mu jëmm teg ko mu àggale te kooku mooy Cheikhul Khadim kon yëg-yëg bi ñu am fii tey mooy wuute wunu toog ak bis bi ña nga ca penk Tuubaa liggéey boobu gën yaakaar naa ne ñëpp ku fi moom nga yëg ndax tey ku ñëw fii rek sa sedd na ci li nga xam ni moom la sàmm borom bëggoon ci xeetam yi te Sëñ waa àggalee ko kon Brésil gi dafa mel ni Sëñ Tuubaa dafee dafee sax dem te du fi jógee mukk nga gis ni Sëñ Tuubaa li ma naan yàlla fay na ko li mu liggéey ci li mu yàlla waaye li mu yàlla da koy fay du du di ko fay ndax ku ne xam ne lu mel ni bëri bi ñuy tudde xasida Sëñ Bàmba yi boo xoolee ay weer ci ginnaaw wala jamono yi leneen moo xam naa am lu bokk loolu waaye fépp koo xamante ne rek duñ ko tudd yàlla Sëriñ Tuubaa dina ko dugg ak mbooloo toj ko tudd ko baat laa ilaaha illallaah jàng fay xasida nodd fa defal lépp nag naka nga gisee fàtteeku taalibe yi ba mën a eggali liggéey sëriñ bi foofu mooy waaw loolu moom sëñ Moustapha ni ma ko xamee da nga ko xamee ñi ne vérité bi moom mel na ne tax dana am ndax euh, koo ca gis ku ne sëñ Tuubaa lay dund moom lay bëgg moom lay yëg ba tax ñoom ñu àggale ko foo xam fii tey fi nga xam ne mosuñu foo tudd baatu laa ilaaha illallaah mooy lakkin unaadi kullu ibaadi bilaa bilaa yi mooy woote boobu nga xam ne doon na ko woote kon ñu ñii dañ cee tàbbi tey kon yaakaar naa ne fii tey am na mag ñoo xam ne ku leen yee woon nii ci Touba Brésil xasaay dana fa jib wala baatu laa ilaaha dana fa jib loolu dana ko wedd kon nag moom waxuma ñun waaye kon ni ko sëñ maaram waxee euh, tubaab bi ci boppam ñoo war a àggal liggéey bi ñu doon ko war a tàmbali rek waaye war noo jël seen bopp yi toj ko def ci baatu laa ilaaha illaa def ci taal bi sëñ Tuubaa ba àggal liggéey bi mu loolu bu liggéey lan am tey tey mbokk yi nga xam te yéen seetaan seen télévision bi di kuréelu Seexul Xadim TV ak seen télévision bi di Touba Argentine TV ñu ngi leen fàttali ba tey ñu ngi fii ci Touba Novara saa ci 24 heures avant journée xasida bi nga xamante suba ci samedi bi le 19 août incha allah lan koy amal moo tax ñu togg suñu jëwriñ baax yi pour di waxtaan nañu li jëm ci bis bi incha allah suba kon sëñ Omar ñu jox la kàddu bi waaw loolu ma ciy santaat Sëñ Tuubaa bu baax santaat Sëñ Tuubaa gi mooy eh, dimbali gi mu nu dimbali boppam te tàggatalul boppam waaye dama ciy jaar rek di santaat Cheikh Saliou Mbacké di ñaan sa borom dolli koy ay leeram te taas ñu ci barkeem ndax liggéey na ci liggéey bu am solo ba mu toogee la mu njëkk a wax mooy jox leen ma ndaw ñi ma def ñoom li sëriñ bi defoon ci mag ñi te loolu mooy jagle goo xam ne ñun ñëpp ci baaxu sëriñ Saliou ca lañ ca lañ xamee Sëñ Tuubaa dooni ndaw te bu njëkk daan nga gis nit di dem ba doon mag soog a jaamu yàlla soog a góorgóorlu ci diggam ak boromam waaye sëriñ bi moo nu dimbalil boppam moom Cheikh Salih eh, di di ña di ko ñaanal baax yàlla ndax yàlla na ko yàlla na ko sunu borom fayal te pas-pas boobu nag moo nu moo nu raw moo nu dugg solu ci sunu jëmm yi ba fu nu nekk liggéey suñu tubaab duñu ci fekk kon nag eh, ñi nga xamante ne bii na ñooy ndaw nekk ci dëkk bi tey liggéeyal suñu tubaab nanu ko mane eh, di ñaan saa borom gën leen a doolee dimbali bu baax a baax ba ni ñu ko bëggee ñu yeggale ko noonu ndax euh, ndaw kenn ku ne xam na ne li koy soxla day bari àdduna da koy soxla sunu borom soxla ko te àdduna moom kenn ku ne xam na ne mooy sayaat sayaatin mooy saytaane te it nag loola moom ku ne xam na ko waaye donte moonu tax a jóge jóge fa nu dëkk nag waaye teewul dan ciy boole liggéeyal sëriñ bi ba nga xamante ne bi ne ni sëriñ bi bëgg ab taalibe mel ko nu mel ko liggéey bi nag euh, ni ma ko mën a waxee ndaw koy yeggale waaye nag comme ni ko suñ maaram waxee rek sànq day day firnde kon dañuy ñaan sa borom gën noo doole doole rek ba kàttan gi nu gën koo am ba mën koo yeggale Moussa wax am solo ndax maanaam dafa dafa dañoo toll ci jamono joo xam ne eh, daa li yàqe dafa bari ak liy fëkke te it nag eh, nit ki eh, maanaam ak jubari da ko wóorut rawatina nag bu fekkee ni dafa ànd ak Sëriñ Tuubaa maanaam rawatina bu ànd ak Sëriñ Tuubaa ndax sëriñ bi kat ci ci dundam ak ci pas-pas bi mu ñu woon dara da cee génn loo xamante ne bi ne dafa dugg ci lil Mustafa nawaytuma yujaddidu sunnatuhu wa xara wa inni ahmadu kon day mel ni yeesal gi mu yeesal liggéeyu sëriñ bi tey damay déglu benn mbokk taaliba bu mën a waxtaan mu yox ni nit ki boo ko bëggee ni mu mel da koy fexee mel te sëriñ bi dafa dafa sàkk ab bindam mu leer nañ ñu koy séen mu def jëf joo xam ne dafa leer nañ ñu koy séen dem na Gabon dem maa yomb fu ne jaar na fa waaye li ci gën a yéeme sax rawatina ñun ñi nga xam ne ñooy ndawi Brésil ñun ñu mën a jàpp ni danoo yore mission sëriñ Touba mission sëriñ bi nag mooy bokk na ci bato bi nga xamante ne bii na moo yóbbuwoon sëriñ bi dafa nekk fii ci dëkk bu ñuy wax euh, euh, Pernambuco fii ci euh, Bahia nga xam ne loolu bokk na ci li ñu gën a war a mën a taxal ñu xam ne pas-pas pas-pas boobu mooy sëriñ bi moo nam moo nam liggéeyal fa ko ci ci xista rek Cheikh Ibrahima Khalil radiyallahu maanaam mi ngi wax ci lu mel noonu ci Cheikh Salih Mbacke radiyallahu anhu wax ni sëriñ bi yabal na ko fi lu jiitu 1986 jëm suuf ne ko daa am mbooloo mu fay jëm si leen a yërëm kon dalay mel ni kon gisug baatin gi leer na ñun nag ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci Brésil rawatina ñi nga xamante ne bii ne ñoo fi ñoo représenté ay yoonu murid war na noo mën a gën a góor góorlu bu baax sellal seen i jëmm tey jaamu yàlla loolu man seen képp lay kattan ndax ak njub képp nga mën a dënkee nga mën a jubbantee ku jubati waaye bu fekkee ni dañoo jàdd kun bëgg a day jafe kon nag dañuy war a mën a gën a góorgóorlu baax ci jaamu yàlla loolu man suñu képp lay kattan te bañ a xool suñu gannaaw tey xool suñu kanam te fexe nag maa am yéene am yéene tàbbal ñi nga xamante ne bii nag ñoo nekk ci yoo ñoo nekk ci yoonu safaanoo tàbbal leen ndax kenn ku ne xam na ne ñoom danoo judd ci réew waaye war na noo am yéene tàbbal leen ci ni ko sëriñ bi waxee sànq rek war na noo mën a am pas-pas dem bàyyi leen bi journée xasida dañu koy organiser seen bopp kenn ku ne xam ne gis nañ réew yi Italie ni ñuy doxalee seen i daayira sax dem na ba daayira yi nit ñu weex képp fam kon loolu pas-pas la pas-pas boobu nag dama ci sooñaat sama mbokki gone yëpp gone laa ni ñoom ndax 26 euh, ans euh, jëm euh, gone la kon nag jëm mi jëm mi mag moom mooy liggéeyal Sëñ Tuubaa te ñun nag ay mag lan ndax doonuñ gone gone nag moom ma nekk ca berse kon nanu gën góor góorgóorlu gën a yokkaat ak ket ci jaamu yàlla lu nu mën suñu gémt laay kattan te bàyyi lu yi lépp loo xamante day dox suñu digg suñu borom nan ca gën a gën a daw te gën koo moytu te xam ni ndaw moom maanaam ci la ci la léppam nekk sëriñ bi nag wax na ni boo ko joxee sag ndaw mu jox la sag mu teel la sag mag kon yàlla na nu sëriñ bi teel boppam te sàmmal na boppam waaw lo loolu moom li ma ci mën a wax mooy fexe maanaam yokk pas-pas yi ndax xam nga pas-pas moom bokk na ci li nit di jiital ci boppam sëriñ bi nag moom danoo dimbali te it wax na ni da ngay yëkkati rek moom mu yeggal yi te lu waaye mën a wax ne sëriñ bi mënu ko moom dala leer ne booba sa pas-pas fa yëggul waaye sëriñ bi moom pas-pasam yegg na ci nu nu doxee suñu digg suñu borom maam suñu borom amul lu ko tëx ndax yaatu gi ëpp na te ba àdduna sosoo ba léegi ku nekk ngi daw ci mbaaxu suñu borom gi te jeexagul sëriñ bi ci lay dund wax na ba jeexalu ko sax dane bisu màggalam bii bu ñëwee la mu amoon day gën a faw ko la mu la mu nekk te ku a def noonu lay léegi kon nag yàlla mbaaxam gii du jeex sëriñ bi nag noonu lay doxee ci diggam ak taalibe yi pas-pas boo mën a am te jàpp ne sëriñ mën na la faa fekk bu sox yàlla dana la fa fekk kon nag li ma ciy mën a wax daal mooy nanu gën a góorlu ci pas-pas yi bu baax a baax te yeesal ko yeesal jëmm yi comme ni ma ko waxee lépp lépp waaye def muy safaan wa te mu leer na ni jàll na te te mu naqari la nanga ko tuubal sa digg sa boroom ndax yàlla kat mooy jéggale bàkkaar yi tey rafet njot ci mbooleem li ngay def it dana am solo kon nag nanu gën a tuubaat bu baax comme ni ko Cheikh Sidil Muxtaar digle tey baalante àq te yéenante jàmm te raxas xol yi te raxas yéene yi su ko defee lépp lu nu bëgg dana yomb ndax yéen saa samkat dem na ba ñi nga xam ne ñooy yéefari dañ ko daan dénk alal ndax lan laabir gu mu laabir ak njub gu leen woon te loola kat nag lanu lanu koy may mooy ñun ñu laabir suñu digg ak tubaab yi te boole ci ak njub gu ma sëkk ba nga xam ne lépp loo xamante ne bii ne wax nañ leen ko day day def direct ci ñoom lay jubal nit nag yàlla la moom du nit waaye nag nit ki moom mën naa jëf-jëf joo xam ne yàlla dana ko rus ba bu bëggee jubal yàlla jubal ko kon waaw macha allah jërëjëf suñu Omar kàddu yi am na solo lool ba tax kon euh, ñu ngi ñu sant bu baax ci kàddu yi euh, sëñ maaram fi ñuy kon ne yow mooy comme ni sëñ Omar dugg léegi kon bato bi nga xamante ni moo yóbboon ku tedd ki ñu ngi fii ci Brésil kon xam du hasard tey jii taalibu Serigne Touba taxawal suñu jëmm xasida du hasard si mbir boobu. Euh, déedéet man gëmuma ni dara am na hasard ci àdduna fii maanaam euh, même bu fekkoon ni yàlla dafa dogal ñooñu sëriñ bi nekkuñu fi ca maanaam bato bi ñu moo indi woon sëriñ bi néewuma la mu nekk fi waaye mu jaar fi rek jàpp naa ni loolu noonu sax hasard waxuma la nag ba fa loolu nekkee ak booba ak léegi ñaata at la. ak booba ak léegi ñaata temps la ak itam lan moo ñu def bañ xam ni bata boobu noonu mu ngi fi ndaxte ci histoire am na ñu ni ni mi ngi fi ba fi mu nekk nii am na ñu ni démonté nañ ko ba yóbbu ko France waaye li gën a wóor mooy ci li nga xamante ni moom la nit ñi wax mooy bato bi moom mi ngi fi nekk fii ci Pernambouc ci euh, Bahia waaye nag comme ni ko sëñ fi sëñ Omar daanee la léegi ñun ñi nga xamante ni ñoo féetee fii ci Amérique latine bi dafa am maanaam responsabilité bu rëy rëy rëy bu ñu am ci loolu parce que war nañoo gëstu ba mu am lu leer que ni bato bi mi ngi fi même bu fekkee ne dafay jaay sax day jar ñu jëndal ko sëriñ bi ndax ñooñee ñu xam ni maanaam sëriñ bi yàlla fayal na ko boppam te fayantuwu ko man pas-pas boobu noonu laa am ndaxte damay nuyu bu baax suñu mbokki waa Rio de Janeiro yi bi ñu ñëwee kenn ci ñoom xam naa ni sax loolu duma ko waxagul ndaxte day doon loo nga xam te ni comme que dañuy fesataan partout te itam mën nañ koo piraté waaye da ci am kenn koo xam ne dafa wax loo nga xam te ni bi ma ko déggee yàlla mi amul kumba xam na ni dafa maa yokkaat pas-pas yokkaat ma aspiration ci liggéeyal sëriñ bi ndaxte ak yëg-yëg kon sëriñ bi moom escalier la rek wala boo comme ni mu ko doon waxee ci muxadimaat maanaam ni ko sëñ euh, Moustapha Sallou doon waxee ci ni ko sëriñ bi di ñaanal ci Matlabul Fawzayni ni sëriñ bi pare na léppam day def rek bés bu set mu tàllalu sor kon sor wi ñu sëriñ bi tàllalal tey mooy ci journée xasida bii nga xamante ni ci la ñu nekk ci óoba sikki sàkk ci ni comme ni ko Omar waxee léegi dina dem ba maanaam ñun ñii dëkkuñu fi dañuy ñibbi waaye nag mission bi ñu war a indil sëriñ bi pour matale ko fi xamale fi sëriñ bi bàyyee leen ko ñibbi ñoom ñu war a wéy di ko continuer ndaxte loolu moom sëriñ bi moo ko ñaan te itam lu wér la te lu am lay doon kon nga gis ni comme ni mu ko waxee léegi sëriñ Tuubaa bi xam ne nasaraan ñu koy génn Sénégal bi yóbbu bu leen leeroon ni bu ñu ko yóbbee liggéey bi lii la ko yàlla fay defe naa ne kon ñu ko génne ko te firnde bi weesul mooy kër sëriñ Tuubaa bi jëkk ci naa ne taxawal nañ ko te ñu ngi nekk Porto Alegre naka nga gisee ci sa gis ci taxawaay boobu xam taal bi am nañ ko ba mën a taxawal kër sëriñ Tuubaa bi ci Brésil muy lu am solo xam nga loolu man jàngat bi ma ci njëkk am rek mooy Serigne Touba nañ ko defoon maanaam xañ ko ak njabootam génne ko ay këram kër yooyee la ko Serigne la ko suñ borom di faye tey jii nii mboolem ko Serigne Touba amul taalibe donte ne ñett lañ fexe nañ ba amal ko Serigne Touba foo nga xamante ni dañ naan fii nangamu ko Serigne Touba la muy kër même bu fekkee ni amuñu doole jënd ko dinañ fa luye kër goo xam ne dañ ko tudde kër Serigne Touba di ko fay te maanaam na norme yi eh, réew mooma di doxe kon jàpp naa ni loole lu yàlla faye suñ lu suñ borom fayee ku tedd ki la ba tax maanaam ñu ñu ñu kii ñu am lool kër googu nga xam te ni nag moom mooy am ca ñu amale ko ci euh, fii ci Rio Grande do Sul fédération bu Rio Grande do Sul jënd ko di fukki daa daayira ak juróom benn yi nga xam te ni ñoom ñoo ko séq ma nekk vice président ba ñu ñu am yéene yi jënd ay kër sax waxuma laa nag ak ak kër waaye pas-pasu fédération bi ak pas-pasu ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci kaw mooy dañoo am yéene jënd ay kër ndaxte xëy na nag wàññi boo gis ci benn lay tàmbale ndaxte pas-pas baa ngi fi bëgg-bëgg baa ngi fi pëseef baa ngi fi te itam xam-xam bi ñu ko war a defee itam mi ngi fi te sëriñ bi kartanal nañu dimbali nañu ba heure bu ñu ñu ngi ko siqal heure bu ñu leen laajee ñu jox na kon kër googu noonu moom jàpp naa ne day kër gi njëkk waaye jàpp naa ni maanaam day gi njëkk waaye am na yeneen yu ci war a topp yoo nga xamante ni ñi ngi ñëw gii nag moom pësseef ak pas-pas rek la ko gaa yi jënde te xat-xat yu met waaye ku nekk xam naa ni sëriñ bi boo koy liggéeyal da koy liggéeyal ci ay jafe-jafe ndaxte lii ñu lii ñuy añ tey wala lii nga xamante ni ay xeeti xéewal la lu lu nur ay xéewal sax ndax sëriñ bi mboolem lim ñu defal ni ko benn mag mu baax doon waxee naan lii ngeen di gis ci xewali sëriñ bi de la ndab la loo nga xam ne dafa fees ba la cay tuuru la cay tuuru nag mooy wàcc ci yéen rek ngeen jàpp ni maanaam la ci biir ndab la ñëw na waaye dara ubbeeguñ sax ndab li kon ñun ku war a santaat sëriñ bi lañ ku war a santaat sëriñ bi lañ ku kuñ kuñ kuñ ñu war a góorgóorlu lañ ni ñu war a góorgóorloo mooy ni ko suñu Omar waxee léegi nit ki boo ko bëggee da ngay nuru da koy nuru nuru lu dafa mos a nekk ci njaareem ab maanaam loolu ñuy wax ab bët bëtóor yëngutu génn gaa yi gaaw rey ko bi mu leen laajee ni leen ana lu tax ngeen ngeen ngeen lor ko ñu ne ko ah dañ koo tegoon nag saay saay mu ne ana ah, xam day nuru nuru lu loolu lay loolu lay loolu lay loolu lay numtu dem looloo tax baaxul kon nit ki koo bëgg boo ko nuru nuru loo sëñ Saaliwu Mbàkke dafa daan wax ne ku baax ki mel ni moom faat na waaye roy ko du ci jóg mukk bay la ajalin mu saman kon nañ sax ci njub te jaamu yàlla xam ni mboolem sëñ Tuubaa dañ dafa woo mag ñëpp bañ ñëw mu ni leen maanaam ajjana duñ jaamu duñ ci jaamu yàlla kenn amu ko xawma fu nekk maanaam amuma ko xawma ko te ku xam fu mu nekk nga dem kon sëriñ bi mboolem lu ñu def loo woon yàlla ak jub lañu ci kéeloon kër googu nag moom kër la goo nga xamante nii maanaam ñi ko jënd fàtte nañ ñi jënd nañ ko ndaxte am na yeneen projet yu gën a mag yu nekk ci seen kanam yoo nga xamante ni maanaam moom la ñu war a def te incha allahu taala dinañ ko réaliser. jërëjëf jërëjëf Serigne Maam Maram Seck kàddu yi am na solo kon ñu jox Serigne Mohamed mu mu tàggoo ak mbokk yi te ñu bëgg a duggee rek nga tàggoo ñoom soñ mbokk taal bi di gën a passé Serigne bi waaw kon xanaa ni ko gars yi baax yi waxee rek ñu sax ci jaamu yàlla te liggéeyal Sëñ Tuubaa te xam ni ñun ñi nekk Brésil day suñ Tuubaa danoo danoo baddil man de du euh, duma du ne aw ma yaqin am naa yaqin bu wér ni ni suñ Tuubaa moom mi ngi fi suñ biir loolu moom la sëñ Sam waxoon ni la mu saf ka ko macca ko xam moom aw ci euh, bu du woon télé bii ñu may intervenir tamit gëm gi ma gëm ni ni suñ Tuubaa mi ngi fi te ku dox tegu ci yoon da nga ko gis moom am na fi kon euh, fi sëñ Maram wax rek ak Omar daaneel rek lay wax nan sax ci jaamu yàlla ak jub la ca des nañ ko bàyyi ak Cheikhul Khadim kenn ku ci ne lépp loo xam ne nii nas nga ko sa xol mooy mbooloo mi takkatoo ànd nekk benn jëmmal sëñ ji dëkk bi rawat na nag kër sëñ Tuubaa nga xam ne am nan ko kër sëñ Tuubaa moom li may ñaan man euh, ci darajey Cheikhul Khadim nga xam ne ab jàmm jàmbaat laa ci sëñ mooy bu dewee déwénee des koy sanc moom loolu lu mën a nekk la ndax ay ay gor yu fi ne yoo xam ni liggéey lañ def ak jaamu yàlla ak bëgg sëñ Tuubaa ak mbooloo mi ko def am na kon nag euh, ñun nga xam ne ñoo jiite fédération bi muy ñoom ñi ko jiitee naa leen ñaan yàlla na leen suñu Tuubaa gàttandu ba lañ ci bëgg lépp ñu am ko kon daal bisu xasaay bi tamit nga xam ne moom la suñ Tuubaa wax karaamati xattu yet yi bu subaa yi képp koo xam ne kii ñëw bi ak mbooloo muy ñëw nan sax ci lool ndax yonte sallallahu alayhi wa sallam day mësta bind kon nag daa mel na sam borom da koo layele Cheikhul Khadim ndaxte ñeneen ñi nga xam ne bokki banu Israël day tey bu ñu doon yéen di seen jàmbar ji ngeen am alalum bind waaye mel na ni suñu Tuubaa la ko fayee ndax lépp loo xam ne Rasulullah bëggoon na ko wax suñu Tuubaa waxal na ko kon nag bis boobu leen màggal suba di ko ñaan yàlla euh, sam borom euh, defal na ak tawfeex defal na ak faju aajo ñi ñëwit ñëpp it lu mel ne fukki ak daayira ñu ko fi jiitu wax li ñëw kenn xamul nu tolloo loolu lépp karaamatu xatiyat yi rek la kon nag yàlla nañu sam borom gàttanu ci bés bi yéen yi nga xam ne yéen a koy def fii waa Novara Saïd am na ak xel mu dal bu baax a baax li ko suñu jóriñ njëkk waxee am na tamit ak mbégte mu baax a baax ndax tey euh, wax sa baaxi morom du yàq dara ci sa baax ndax waxuma ci suuf bi accès rek ay nit dañ doon xëccoo te loolu suñu tubaab rek moo am nga wàcc ay nit di la ko jox ñu ñoo lay dalal ñoo lay dalal loolu Sëñ Tuubaa rek ko am Màkka tanul ko la muy tedd tedd sax amu ko waaye loolu nag Sëñ Tuubaa la ko sam borom fay maa ngi sant bu baax a baax di sant mbooloo mi di leen gërëm di gërëm télé bi ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaari télé yi yàlla ba télé yi ñu dégg yëpp ñu dégg ko incha allahu rabbi jërëjëf jërëjëf Serigne Mohamed kàddu yi rafet na am na solo jërëjëf jëriñ Maam Maram Seck jërëjëf Seydina Omar mi nga xamante ni moo nekk Kota léegi nekk suñu wetu càmmañ moom it kàddu am na solo jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéenay noonu topp seen programme kuréel seenu Khadim TV ak seen programme Touba Argentine TV lii moo nekkoon 24 heures avant journée xasida bi nga xam ne ñoo leen ko def fii ci Novarata mu nekk troisième édition ñu leen jox dig dage incha allah ci yeneen jataay jërë ngeen jëf